ñuy toog xëy suñum réew ñu dàq fi telenovelas yi fi amoon indi fi suñuy yëfi bopp nee nañu waaye yëfi bopp yi de ñi nekk bitim réew te daan ko def moom la gën a nuru ko li yi di dund sénégal yëpp riir te wutali ji ci téléfilm yi xale yëpp bëgg dem nekk ay star ñu def am njàngat ka ne sénégalais yi consommé tuñu telenovelas yi waaye téléfilm yi sénégalais di joué dañu gën a gis seen bopp donte ni ko européen di defee noonu la ko sénégalais yi defee wuute bi de bariwul loolu ñu def am njàngat nag ñetti at yi weesu mu mel ni xew-xew la boo xam ne ñëpp dañ ko jëlandoo mu nekk loo xamante ne xale yëpp bëgg nañu nekk star firnde gi mooy bi ñu fi wootee am ndaje bu ñu war a tànn ñuy joué keroog dafa fees dell ba mujj ñu koo def ñu gis ne nag léeg-léeg réeroo dina ñàkk ci diggante acteur ak promoteur maanaam ñi nga xam ne ñooy produire film yi li waral coow li jamono ji muy mbirum Marème Dial xëy na da di jigéen moo tax ay mbiram gën a fés waaye bu ngeen bàyyee xel at ci gannaaw ñu ngi doon seetaan Madior ak joor am kuñ doon wax cousin wu Dior Maïssa Tendy Dior première saison bi ki mu nekkoon bi deuxième saison bi ñëwee dañu changé personnage bi ba léegi kumpa la xamuñu lan moo nekk ci biir li waral changement boobu sénégalais yi continuer di consommer liñ bëtuwuñu ñu demati ba ci biir fidèle ñëw ak waa Evenprod ñu gisoon ki nekk Bachir première saison deuxième saison bi ñu lancé moom nekku ci ñu jël beneen personnage def ko Bachir ba tey sénégalais yi seetaan amuñu explication bu leer

mu def benn post wax ne lan mooy ndey nekk nit ku siiw ba pare di am ay jafe-jafe fay sa luyaas am ay jafe-jafe fay say facture kon sénégalais yi jàngat ne kon ñaar ya weesu woon ak yeneen yi nga xam ne bàyyiwuñ ci xel ñooñu ñëpp mbirum koom-koom lañu jote woon ak seeni producteur léegi nag bu fekkante ne dangay produire film di jël sénégalais di leen exploité ngeen xeex bu tubaab ba mu jóge fii ñu jël bu sénégalais bi di ko consommer donte sorianto wuñu bu tubaab bi ndax saa su nekk ngeen dégg Jamra di kaas wala yenn ONG yi nga xam ne dañuy xeexal lislaam waaye teewul chaque jour sénégalais dañ koy consommer que mu nekk ci tele yi wala ci internet bi lépp lu ñëw sénégalais da koy consommer waaye li waral coow li jamono jii mooy mbirum Marème jaal mi nga xam ne nekkul ci maîtresse d'un homme marié kon ñu seetlu ne loolu moo wokkoon ki joué infidèle nekkoon Bachir waaye loolu moo waral itam ki joué woon Maïssa Tende Dior Sima joor ak Dior ak Pikini production nekkatu ci mu mel ni nag jot na suñu producteurs yi bañ di exploiter suñuy ndaw ndax comme xale yi dañu ko bëgg nañuy fexe ngalawaay di saakote ak ñoom seeni wareef ndax xale yi fi mu toll nii ku jug bëgg a nekk star waaye star it yombewul noonu. donc bu la borom bi dimbalé ba nga nek ci di liggéey kenn ku nek la ngay daw da nga bëgg mu lew la té da nga it mu nek sa ñaq kon les réalisateurs les producteurs les scénaristes nga way na ngeen am yermane ci suñu doom ndax lepp bi Sénégal la dess dossier jour bi tay lolu la semaine bu nek lepp lu xew ci rew mi dinañ ko jangat ci biir limametti.com limametti.com ci bi leen di jox xibaari woor di leen defal ay njàngat yu leer lépp lu ngeen bëgg bu ngeen ko duggee ci biir lima metti point com di ngeen ko fa fekk tey daal mbirum téléfilm lañ leen waxtaane beneen yoon it ñu waxtaanati ci leneen waaye yërmande waay yéen ñi nga xam ne yéen suñu producteur xale yi buñ leen di exploité waaye nañ leen di nàkkal jërë ngeen jëf topp leen ñu lima metti point com